société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may seen bis simila ñu ànd yër yéenekaay yi tàmbaleeg réew mi quotidien mi yittewoo ba tey wàccaayu élection présidentielle 2024 réew mi ne PDS moom fi ne dañu ko tànc daa mel ni ku nu sës ci miiru wis bi la ko waral mooy libéraux yi xamunu fu nuy teg seen tànk ñoo ngi ci diggante xaar Karim Wade min xamul ndax dina ñëwam déet ak tekkaaralu baayam bi di président Abdoulaye wadd jëm ci beneen candidature ngir parti démocratique sénégalais ci biir yéen kaay bi ay farandoo Karim Wade ña ngay ñaawlu xibaar yéen leen di jox ci seen candidat booba te ñaare du doon dëgg waral sax ñu dem ba naan Karim Wade ak baayam dañuy fobe seeni militan yamuñu ca Wade ya ndax joxoñ nañu it Nafissatou Diallo mi ñu dénk wàllu communication boo ko laajee neenu dala joxoñ Tafsir Coy Tafsir it boo ko laajee mu ne la demal ci Nafi booba jamono ci la témoin Aminata Touré ngay xajamal ci rek Benno Bokk Yaakaar jëm ci élection présidentielle bu 2024 ndax mi mi nee na ku woteel Amadou Ba leer ni may nga Macky Sall ñetteelu mandat moom njiital mi mi 2024 jàpp na ne kon Macky ko Amadou Amadou mooma le quotidien gis na ne APR ci boppam moo koy xeex ndax ba nu ko tabbee candidat allié yépp di farandoowu APR yi dañu ci ànd ne Macky Sall gonga waaye fa coow la ne mooy ci biir parti ba ndax ña fipp yépp foofa lanu bokk Sud Quotidien jàppee ca ne APR ci boppam mooy xeex ci biiram yéenekaay bi joxoñ beddeeku yi fës ci biir boobale parti kenn ku beddeeku fippu di Aly Ngouille Ndiaye source a Sall ba ba démb yéene kaay bi nee na Aly Ngouille Ndiaye mooy ministre bi ñu dénk wàllum mbay équipement rural ak souveraineté alimentaire waaye xëyatut ndax këram lay toog moom maire Linguère bi di jokkoog directeur de cabinet docteur Moussa Sow ak secrétaire général bu ministère ba Papa Malick Ndaw ma nga xam ni sax mooy signé lépp luy kayit waaye la taxul Macky Sall bàyyi ndax yéenekaay bi nee na ma ngay wëy di dox tànki jàmm ni mu ko defeek Abdoulaye Daouda Diallo ngir bëgg Aly Ngouille ñëw topp ci ginnaaw Amadou gàllankoor ci bi nu dëkmal yéenekaay bi ci bu Benno Bokk Yaakaar bi wàññeeku waaye it fukki at ak ñaar yi Benno Bokk Yaakaar jiite Sénégal lu baree bari jëm ci wàllu yorin le témoin di ŋàññi jamono jooja gouvernement Amadou Ba beeg li mu fi liggéey boobale gouvernement de combat yéenekaay bi nee na combat ya mu gañe mooy lu jëm ci xeex su wujj ci wàllu politique sukkandiku ci wàllu yoon loola yóbbu xel yi ci Ousmane Sonko mi bés bi xëy di rëdaat yoon bi état aw moom ba tëj ko tas partem lépp xewe diggante sûreté urbaine section de recherche ak dikk bés bee ngay nittali coowal cocktail molotov force occulte ak commando yu pastef ba ci biisu yaraax bi lii lépp ñu gal ci ndoddam ba tëj ko moom lay awakaam dem kalaame ji ca cour de justice bu CEDEAO vox populi nañu ñetti kalaame lañu fa yóbbul nguuruk Sénégal te bëgg na nu ñu àtte loola bala ñuy yegg ci déposer candidature ñeel élection présidentielle bu 2024 bëggu-bëggu avocat yi mooy Ousmane Sonko mën a bokk ci yooye la wote bëggoon ko bàyyiloo Ousmane Sonko moo moo ko xamle ci biir yéenekaay bi di Vox Populi ci Libération mu yokk ko ne ñaari téeméeri million sax lanu ma wax ne bu ma nangoo woon ginnaaw Ousmane Sonko daanu ma ko jox moom Serigne Assane Mbacke mi génn kaso yàggul dara jàpp na ne nag sénégalais yi ñoo war a taxaw temm ba lii ñu teg ci kaw Ousmane Sonko ñu teggi ko F24 moom xeex bi mu bëgg a xeex ak nguur bu Sénégal daf ca ami gàllankoor la ko waral kaay bi di wal Walf Quotidien nee na mooy stratège la amul maanaam kuy xalaat ay pexe togg ko ba mu ñor yekk ko yëngal réew mi yëngal ñi ko jiite Walf Quotidien quotidien nañu fi ak loolay sotti Pastef ñoom yëngal nañu lool tukkib Macky Sall ba ca New York ndax doon ko faa yuuxoo ba yàq xew mi yoor yoor bi ne ko yuuxoo yooya boo ko déggee xamal ne mooy sonkorisation booba lépp sonkorisation yéeni bi nee na jugee na Sénégal tuxu ba Amérique ndax foofa militant Ousmane Sonko yi sédd nañu ci président Macky Sall ba mu doy bés bi naan ko Sonko boys yooyu kay xeex bi diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko lan tuxal jëlee ko Sénégal yóbbu ko New York New York xoo yi gars yi def président Macky Sall ma nga ñuy xamal ni itam Macky Sall amut benn jot ndax gannaaw assemblée générale Nations Unies moo taayu xeet yi dalal nañu ko ca Maison Blanche palais Amérique ba sekk na itam waxtaan wu yaatoog Antonio Guterres moom njiitu réew mi waaye li ko teree nelaw source a ngi wéy naan ñu wees wut yuuxoo yi ko goney Ousmane Sonko yuuxoo Khalifa Sall ki ñoñam ñoom source a nee na parrainage citoyen lañu tànn donte sax mënoon nañoo sukkandiku ci seeni député ba mën a bokk ci élection présidentielle bi ñu jëm Malick Gakou mi bëgg bokk it mi ngi ci caravane waaye Walf Quotidien nee na préfet bu Matam bàyyiwu ko ca ndax indil na koy gàllankoor l'observateur wax ca loola jàpp ni itam injustice la bu nu teg ci kaw Malick Gakou joxoon ca itam njuumte lu mu gisal kilifa yi réew mi ndax nee na nii lanu fi doxalee woon ak ñeneen ba may leen doole ci wàllu politique ñu mujjee doon ñu leen lëjal waaye ñi lëj la dëgg l'observateur nga mel ni ku naan mooy way politique yi nga xam ne bu nu nekkee ci biir léppay baax léppay nooy kenn du leen dégg ñu joxoñ leen lu jaaduwut ci réew mi waaye bu nu leen dàqee mbaa ñu génn di wutali seen bopp tàmbalee ŋàññ ñañu àndaloon waaye loola du leen yóbbu fenn duñ ci jëlee lenn ndax askan wi moom gëmmunu nelawuñu la ñoo ñay wax ñaare duñ ko dégg buñ sukkandikoo ci l'observateur ñu tabbi ci la tribune mi bàyyeegul téeméeri milliards fonds force covid yi ñu ne doñet yéene kaay bi nee na bii njombe kenn dootu ko fàtte ci mim réew libération ne liñ dul fàtte dëgg kay mooy mbiram Doudou Diop xale bu góor bi réalisateur la ab film documentaire la bëggoon def ci biir gaal yi wutali bitim réew projet ba mu tuddee ko Daj Graal yóbbu vox populi xëy ci mbiram Doudou Diop mooma ne ñu ca waaxi Maroc ya la mujjee ñàkk bakkanam ca nooto guy jama kayaar ak gerew ci njeextalu ay bés bi teg nañ fa loxo ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñaari nit ñu bëggoon a tukki ak juróom-ñett ya leen bëggoon a yóbbu ya waral nappkat yeeg doomi réew mi ànd di wutali bitim réew vox populi jox na ci kàddu ma Makumba Jeey mi jiite union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal mi ci def ab taxaw seetlu le quotidien moom seetlu ne gaa yi danoo soppiw doxalin leen bëgg a tee yegg bitim réew enquête yeggee ñu réeroo bi dox ci diggante kilifay CEDEAO yi nañu ñañu fal ca seeni réew ak militaire yi foqati nguur ga déggoo defatuñu ko yéenekaay bi gis na ne takk der yaak politique ya ku ne yaa ngi ñoddi jëmale sa boor sunu làmb mel ni ku ñoddi tey jëmale boori Modou Lo nañu noppi na ngir dajek Ama Baldé te Modou nag foo ko natt jekk na muy ci wàllu physique muy ci wàllu mantal réew mi quotidien nanu bala nga ne naam ne fa ndax combat booba ñu jàpp juróomi fanweeru novembre